waaw salaamaaleykum bu la ginnaaw bi ñu la nuyoo di jaajëfal si ñëw bi ngeen ñëw fii ndax boo leen nu fekkee fii ñun dañuy kontaan ci ñëw bi ngeen fekk ngeen mu fekk fii appel bi nag ñii dañ kaa namoon moo tax gis nga ñëpp ke laay koo ci gis kanamam yaa ngi ciy gis leer goo xamante ne ni mbégte la ah, ñuy gën a gëm Seydina Limaamu ndax ñun ci lii leen judd boo nu fekkee fii rek boo nu laajee dañuy am fierté pour wax ndax ku xam Maam Rane xam nga ci gëm Seydina Limaamu kontaan nan torop nag sunu xool sedd na lan mooy sa euh, njaboot gi nga xam ni moo di euh, euh, Seydina Limaamu seen njaboot yëpp lan mooy sa relation ak ñoom. waaw dangaa bokk ci njaboot gi dañ see judd ñun ndax ku ne Mame Faty Diop te ku xam histoire am xam ne Mame Rane bu waxee ci waa Kër wax na ci loo xam ne ci lu mbokk la. fii taalibe yi ñun ñëpp ak Serigne si ñoo yem ñun ak Serigne si ñoo yem ci lii parce que doon dafa woote ne aji daay laay yaa xam ne siwal jinni inni rasul laay ñun ñu ñëw gëm si. taalibe yi ak sëriñ si ñoo yem waaw parce que seen maam moo woote na yàlla ma yónni suñuy bàyyi gëm ko ñun loolu ñooñu loolu moo ñu si boole waa loolu la euh, thème bi nga xam ne moom la ñu jagleel tey éducation mu di yar ak teggin ak ñu ngi jàng tey loolu ban solo war am ci réew mi ak fi réew mi tey ji waaye yar moom ci la lépp nekk xam nga éducation dafa doon loo xamante ne dafa am solo parce que bu njëkkoon jomm jomm daa amoon ak rus loolu nag boo demee ba jub ci réew mi yaakaar naa day doon loo xamante ne tey bu ñu ko andiwaatee rek ñun dañ ciy kontaan parce que réew mi ku xool ni muy demee nii laaj na éducation laaj na ab yar waaw bu ñu andee thème boobu day doon thème boo xamante ne am na solo trop kontaan rek laa ciy def wax dëgg yàlla. dina Abdoulaye Thiaw Laye tey fekkewu ko ban sentiment am moom mu manqué li nga xam ne moo di 142 waa ñun waa bu ñu doon dogal du dem mais yàlla mooy dogal dañuy nangu dogalab sunu borom xam ne moom li ko waroon ci diine ji dem bàyyi fi ñoo xamante ne nii dinañ àggali mission la mbir mi mission boo xamante ne tey képp koo xamante yàlla def na nga fi rek mission ngay àggali mais borom woote bi wax na li muy wax ba dem yaakaar naa mission boo xamante ku ñëw rek da ngay topp si mission bi di ko ñaanal yàlla na yàlla lokkeel ay rem ndax kenn dootu ko fàtte xale yëpp xamuñu ku dul Seyna Sëñ Ablaye mais yàlla nag bu bu defee ab dogalam kenn mënu dara liggéey ba dem. salaamaaleykum. yaay booy ñoo ngi tey euh, ñu am mbégte dajewaat fii ci euh, euh, Cambérène ñu toog ñaari at yoo xam ni amul li nga xam ni moo di appel tey ban yëg-yëg nga am. ah sant yàlla rek julli ci Seydina Limaamu alayhi salaam mi woote woote bii yàlla yàlla yokkaleer Seydi bay Abdoulaye Thiaw ci barke Roowalaay Issa te ñaan yàlla may ñu def ci appelu jàmm te yàlla nangul ñu ci barke Roowalaay Issa kontaan nañ trop dëgg yàlla. daaw yoor yoor rek nanu def mais ñu ngi sant yàlla bu bëri bi nga xam ne ren dellu siwaat nañ ci bés bi ñi ko daan defee ni ko Baye Ablaye daan ko defee ñu ko ciy gunge yàlla na yàlla yokk leeram su barke roowalaay Issa te yàlla la lan nga yëg tey bi nga xamee ni Baye Baye Baye Abdoulaye Thiaw Laye tey jii teewul li nga xam ne moo di appel bi ah métti na de parce que sànq sax jooy naa biñ koy rendre hommage parce que ñun dañ daan ànd ak moom ay euh, nga xam ndar Gosaas fu ne dañ fa daan dem ak daayira moom ñun troupe bi ñuy dugg troupe moom nañu xamoon di ànd ak moom fu ne daayira mais ñun manqué nañu carrément man dama war a dem waañ ba mais manqué nañu daal xam ñu ñëw rendre ko hommage après may dem waañ bi duma demaat temps mais ñu ngi sant yàlla di yaan yàlla yokk ay leeram dekk ay leeram manqué na ko trop. yaay boy ban yëg-yëg nga am tey. xanaa kontaan rek euh, ma nekk seen confrère parce que euh, animatrice la à la Convergence FM euh, vraiment ma kontaan ci fekkee appel bi ñu gëj appel ndax pandémie bi ñu namm appel lool macha allah waaye tey yàlla dogal nañu toogaat fi ci kattanam ak mbaaxam di sant rek di di ñaanal ñu fekkee waat ko at yu bari ñu fekkee appel yu baree bari te yàlla yokk xéewal yi dàq fi pandémie bi macha allah bég nañ kontaan nañ laay maxtaar